alors maa ngi fekk ñaa loolu mais ñaa ma lay njëkk a wax mooy seen clip bu bees bi bi hmm. ngeen tourné États-Unis naka la demee waaw clip bi xam ñu ngi ko ci dëkk bu mag ba nag hmm. dëkk ba ñu naan photocopie uh-huh. euh, la gis-gisa hmm. euh, mu keroog mu wóolu la taxaw ne man presque sax yow yaa ma leen gënal naka la def sa xol waaw sama xarit la suma doomu ndey la kooku maa ngi moom lëndeg maa di la rek maa moom c'est comme du café au lait et lait daal sama xarit bi yaa ngi ci ñaata flowers slum bi baa ngi ci quatre-vingt-quinze mille followers. léegi mu yegg xanaa sax de. ah ma ne léegi mu yegg sax de da koy romb sax xam nga slum du président du caaxaan. dëgg la ñu yegg ko dem ba couvrir campagne électorale président de la République loolu duy foo. duy foo mais ñaa mën naa ñëw euh, ci côté snap bi parce que ñu bëri ñu ngi wax ci événement man snap bi laa bëgg a dikk. gars yi dañ ko doon bu njëkk daw daaw ñu ko def événement mais léegi dañu gis ni yow da nga ciy liggéey mën naa xam li nga ciy gagné. waaw snap bi gars yi ko jàppoon foo man snap bi wër naa ci àdduna couvrir naa ci lu mel ni Bamba Day couvrir ci tey meeting euh, campagne électorale président de la République euh, APR